dafa am ñu taxaw wax ne am na 94 milliards man personnellement défier na le député Ousmane Soko ni ko na def benn commission d'enquête mayeen naa ko mu demandé ko jox naa ko tam date bu ñu demee ba altine defu ko ñun dinañu créer la commission d'enquête woo ko déglu ko député la mu wax ñu li mu ñu wax li mu wax fan la ko teg bu boobaa dina leer naññ ndax itam tuuma yi ak tappale yi ak wax li ci ginnaaw dëgg dafa bare te ñun député yi on a été victime de cela nit nag bu fekkee bis bu nekk mu ñëw ci sa biir kër wax la loo xamee dara du ci dëgg da koy tiiñal wax ko ni ko li ngay wax du dëgg wan ko sénégalais yi sénégalais yi xam ko kooku c'est décision que nous avons prise et que je me de mettre en œuvre pour loolu mën a leer ci bëtu sénégalais yépp beneen bi ci des nag mooy yéen ak fonctionnaire yi ngeen àndal ak ñi ngeen ko bokkal di liggéey liggéey bi ngeen di def doy nañu li ngeen ñu woon ci kayit doy nañu li Cour des comptes wax doy nañu kon jàpp nañu ni li ngeen waroon a def def ngeen ko leeral ngeen ko xaatim ngeen ko jox ñu ko ki dul lire nak wala xamul mom lan la géej gi di riir mais kooku mënu ko xam